asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal àq di leen di bég tey sant ci bés bii ak li nu fi dajale ak ki nu fi dajale xam ngeen bis bu ci nekk rek dafa war a niroog ki nga xam ni moo tax ñu di ko woote kon ñi dellu di ñaanalaat sëriñ Seex Jóob mi nga xam ni tey jëmmam moo tax mbooloo mi daje fii di ko fàttaliku di ko ñaanal waaye tam ñu sàkku woon danga ma def tuuti ay kàddu rek ci li nga xam ni moom mooy dëgg-dëgg yi nekkoon dëgg-dëgg yi taxawaayam ak liggéeyam bi maana ba mu fiy jóge itam ci loolu la soññoon ak njabootam ñu jëm ca te mooy jàngal jàngale xëy na sax nag jàng jàngale moom doon na loo xam ne rek wëratuñoo soññi waa dëkk bii di leen ci jëmale ndax dañuy wax toujours rekk nii xëy na dëkk bi li muy rëy rëy daara rek la mooy kër yi fi doon daara ak kër yi nga xam ni dañoo ñëw dëkk ak daara ndax ki nga xam ni moom ba muy sanc ab sancam daara la woote woon keneen ku ñëw moo benn dangay ngay doon ku dëkk ca biir daara ja wala ñu tudde la ku dëkk ak daara ku dëkk ak daara nag la ci am solo mooy nga xam ni ah foo toll ngay bàyyi xel ni man de fii ma nekk daara la kon naa fi def lu méngoog daara te mooy di ja di di di waa jàppale di jàppale waa daara fawu nag caanam yépp te xam nga ne nag alquranul karim moom bu dee ñun fi ci suñ réew mi dañoo baaxoo lool di woote ay gëm-gëm waaye suñ gëm-gëm yooyu yépp nag la ci ëpp ay waxi neen rekk la luy loolu mooy ñiy woote woo ci turu boroom dëkk biir Sëriñ Tuba radiyallahu anhu bari na lool nag waaye nag lépp loo wax ne Serigne Touba ko wax de ña ca gën a bari dañ cee tànn la leen arrangé ñi di ko def lañ la leen ci arrangé wul ñu tege ko na le loolu ku ne xam ne bari na fi lool nag bari na fi lool nga xam ni ci wàllu Serigne Touba lanu gëm ay murit lanu Serigne Touba lanu gëm ay murit lanu loolu moom siiw na lool te ñëpp xam nañ ko waaye nag di xeeñtu Serigne Touba xom tegoon ay jéegoom ya mu doon bëgg nga di ko ko bëggle ya mu doon bañ nga di ko ko bañ le déedéet nag ñu baree bari tënkuwuñ ca loola bu ko defee loola nag day niroo rek la suñ borom doon wax naan xaalatil aarabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslam na xam nga ni baatu iman ak islam bokkuñu ci diine ji waaye boo demee ci wàllu tarixa itam ci gëm sëriñ Touba ci gëm sëriñ Touba ak doxe ay dox yinam bokkuñu kon daanaka boo xoolee ñi fi wax naan gëm nañ sëriñ Touba bari na lool waaye da di dox ci aw dox yinam nag néew na lool ndax bu fekkan ni nit ñaa ngi dox ci aw dox yinam li nga xam ni ñoo ngi koy faral di wax lu bare bare donte ko nag ñi ko waroon a dégg ñi ca ëpp yewiku nañ ba dellu ca seeni itte waaye dañuy wax ni moom boo dee wax di jëmale ci lu baax waxal rek donte ka kenn dégg na ko baax na donte ka kenn déggut ko waaye malaayka yi dégg nañu ko te danañ ko seere fa kanamu suñu borom kon loolu rekk moom moo ci am solo xam nga ni daara dafa di loo xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu bi muy sanc fii looloo taxal mu sanc ko fi waaye sanc ko woon rek pour dëkk bu xumb ni koy faral di waxe tuubaa rëy na déedéet ndax rëyaayu ab dëkk ak xumbaayu ab dëkk moo ko jële woon Daaru Salaam wala boog moo ko jële woon Mbàkke di wër feneen foo xam ne dina méngoog li muy woote te mooy daara jàngal jàngale ba mu fa jógee dem Daaru Salaam mbooloo ma di daw di ñëw ba mujj mel ni dëkkub xaw a niroog luy jëm ci dëkkub àdduna te mooy mbooloo mu bari di walwal yi ñëw coola bari lool mu dawaat jóge foofa demaat feneen foo xam ne day méngoog li mu bëgg te mooy jàngal ak jàngale boo dee fii nag bi mu ko sancee am fi ay at yu néew yàlla suñ boroom dogal mu jóge fi di doxi beneen mission euh, dëkk bi di dund ba suñ jamono jii di màgg waaye ànd màgg googu gépp daal nit ñi daw di fi dëkk si war nañ fu ñu toll rek di fàttaliku ni daal ci ko samp moom daara la woote woon comme daara la woote woon nag boo fi ñëwee tey wuyoo ci aw turam la amoon solo mooy nga doon kuy jàngale boo ko mënuta doon nga doon kuy jàngulu boo ko mënuta doon nga doon kuy jàppale ñay jàng ka jàngulu loolu day mel ni ba ko ñëpp doon doxe rek konoon fi mu toll nii jàngalekat yi ay buur la ñuy doon ci dëkk bi waaye nag safaan bi moo am dégg nga ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu jàng jàngale ci dëkk bi ñoom la ñuy jàppe ay jaam ñoom la ñuy jàppe ñu tekkiwul dara nag ña nga xam ne ñoom la jàngal it muy ndaw ña ñoom la ñu jàppe ay jaam jàppe leen ñu tekkiwul dara nag la koy firndeel mooy nit ñi dafa mel ni duñu mas a accepté daara bépp boroom kër boo gis wala ñi ci gën a bari xëy na daal dinañuy tëral programme dégg nga ci naka la ñuy def ba am kër naka la ñuy def ba takk soxna naka la ñuy def ba ngénte def ci xaalis bu bari waajal ko bu baax a baax naka la ñuy def ba jënd ay meuble ak ya ca aju waaye daal li nga xam ne moom duñ ko tëral programme mukk mooy naka la ñuy def ba seen doom ji yi jàng lañ cey am daal mooy jur ko mu am juróom ñaari at ñu jël ko sànni ko ca daare sëriñ Abdou Lahad Diop wala jeneen daara fàtte ko fa du aw dàll du am mbubb du jàppale sëñ daara ba du ab téere du dara bis bu nit ñëwee nag ni la wala boog bis bu sëriñ Abdoulahat Diop wala boog sëriñ daara ba yónnee ci yow ne la xale bi wàcc na dégg nga woo say mbokk wax ne dangay ngay laaxeey wax ne dangay ngay jooyeey te fekk ni loolu kat dara du ci dëgg ci yow ndax dafa mel ni daal bu ñëpp melan ni yow moom xale boobee ñuy wax naan wàcc na kër du wàcc ndax ba nga ko fa yóbboo rek na nga ko nga nga ko fàtte la doon tax njàng ma sotti dara defoo ko ca boo dee ki nga xam ne mi ngi ci biir kër gi moom nga xam ne dafay jàng di dem ak ñëw di wàcc <clears throat> fii ci dëkk bi am na ay xeeti jàngukaay yu bari te bokkuñu am na fi ñuy jàng daara dégg nga am na fi ñuy jàng franco arabe am na fi ñuy jàng français ak yeneen xeeti jàng waaye ñett yi moo ci gën a siiw <clears throat> ñetti doom nga am wala juróom am na ci ñaar ñoo xam ni wala ñett ñoo xam ni danga nga leen a dugal ca école francais ba wala école franco arab ba boo ñëwee li ngay jëkk a laaj mooy ñaata la ñu inscrit woo ñu wax la ko nga dem lijjanti ji ko boo ko yorul itam nga joxe ko bu loola jàllee ñu bindal la wàllu bagage yi nga xam ne moom la ñu soxla woo nga jënd ko bu loola jàllee nga jëndal ko ay yére yu rafet yoo xam ne moom lay awante saa bu xëyee di dem di jàng ji di sol lu rafet di dem ak ñëw kon loolu ñetti xale rek la yeneen ñaari xale ci des na nga xam ne yaa leen jur comme na nga jur a ñett ñële moom nga jël leen séddale leen kii nga sànni ko ca daara ji kii nga sànni ko ca daara jële waaye nag dara ba nga leen fa sànne rek nga ca pare kon loolu day mel ni yow sa gëm Sëriñ Tuubaa ay wax rek la waaye dara du ci dëgg loolu nag moo fees dell dëkk bii nag moo kon loolu moom daanaka Serigne Touba lañ gëm moom te lim digle xam bu dee julli sëriñ Touba digle wu ko yàllaa ko digle kon boo ko dee def itam du topp ndigalu Serigne Touba woor sëriñ Touba digle wu ko yàllaa ko digle dégg nga ak yeneen ak yeneen bu defee kon Serigne Touba ana yan digle mooy yi nga xam ni dafay gunge ak julli dafay gunge ak koor daf koy sellal yow ci sa bopp yow sa jëm bopp dafa lay sellal Serigne Touba yooya la sos. dégg nga amma naka noonu joxe hadiya yitam euh, Sëriñ Tuubaa diglewu ko de yow yaay jël ci li nga am di ko yoti ki nga yaakaar barke ci moom kon loolu sa bopp bopp tax nga koy def kon loolu sa bopp bopp moo tax nga koy def waaye li nga xam ne Serigne Touba moom la digge moom la digle dëgg-dëgg daal mooy sew-sew yi nga xam ne dafay digle ponki jaamu yàlla yi wala ba ponki islam yi muy julli muy woor muy euh, joxe asaka ak yee ci aju yar ndaw ñi moom la jëkk a digle fii ci dëkk bi ay xale yu réew wala yu yara di moo ko fees dell nag waaw nekk ci mbedd yi di dàqante di football di saaga ay mag man mu leen romb ñu yuuxaloo ko dégg nga ko ñaawal ko sànni ci këri jàmbur yi loolu rek lañ fi nekke te kenn ku ne am nga kër goo dëkk waa kon ana ndigali sëriñ Tuubaa yi lim jëkk a digle mooy ya ayyuha sibyaanu laa tastaxiloo anil huda wa bil uloo mistaxiloo la wala boog laa tastaxiloo anil huda rek la jëkk a wax boo leen soxla woo lu dul am jub te xam nga ne xale bi nag mënta jël boppam di ko jëmale ci am njub yow man mi ko jur yaa ko mën a jël di ko jëmale ci ak njub kon sëriñ Touba yow lay waxal waaye dëkk bi boo ko xoolee ay xale yu xaw yara diku moo ko fees dell te kenn ku ci nekk am na kër goo dëkk dégg lu gën a dëng ñi ngi koy def lu gën a dëng ñi ngi koy def dégg nga xale jigéen yi itam noonu njàng meetam daanaka njàngum alquran mi bépp sëriñ daara boo xam ne jàngal na ab donga ba mu mokkal alquran loola ak njàmbaaram rek la waaye kenn jàppale wu ko ca nag ka ko waroon a jàppale jàppale wu ko ca ndongali bu jógee ci daara ji dem ci kër gi ñu jàppe ko ab jaam jàppe ko amul jàppe ko ku amul nday amul baay kenn ku ci nekk ci ñun loola la jàpp sëriñ daara bi saa boo xamee ni daaram am na lum fa sas way juru ndongo yi ñu tudde ko ak fay ñu bari ci nit ñi di wax naan xanaa jamono yàqu rek de waaye daara kenn daawu ci fay ñu baree bari danañ koy faral di wax te ki koy wax kat pourtant doomam jëm dugal ca franco arabe ba walla français ba nangu na koo fayal lañ fay laaj lépp bagage lañ fay laaj yépp ak yére yi nga xam ne moom lay sol saa bu xëyee yépp nang na ko def waaye daara daal moom lañ nanguwul muy laaj dara daara moom lañ nanguwul muy laaj dara te te yaakaar naa ni ma wax rek benn nettali bi wala ñaari nettali yi nga xam ne moom manes na ko cee tënke euh, Sëriñ Tuubaa dañu wax ni daawoon na yónnee dara jox ko jëmm ni ko demal yóotal ma ko sama waa kër mu dem ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowe ay doomam mu jox leen ko ba mu ñëwaatee ñu laaj ko mu wax ko ñam ko jox mën ko déedéet ñay jàng ka jàngale man moom laa jàppe muy samay doom bi max naa sama waa kër ak <clears throat> Cheikh Mahamadul Murtada radiyallahu anhu moom sëriñ Touba ba ñu defaree daara ju mag jii ñi nga xam ne moom la ñuy beesalaat ci jamono jii ca yoon wu jëkkoo bañ ko defaree ba mu egg ñuy tëral ay programme ci ana naka lañ koy yore ba lépp tege ci aw yoon ba loola amee ñépp joxe seeni xalaat ca ña nga xam ne ñoom lañ ca doon laaj seeni xalaat am ñu wax ne ñi nga xam ne ñoo fiy jàngale daal programme biñ leen di tëralal mooy kenn du leen warlul ak fay dañ fiy nekk rek bu ko defee ñu leen di jàppale ci seen itte am na ñu joxe woon xalaat boobu ñoo xam ne xalaat boobu ba mu eggee ji sëriñ Mahamadul Murtada dafa wax ni man de boobu xalaat bokkuma ci daal xanaa kon ñoom ay malaayika lañu ndax malaayika de moom bëggul dara soxlawul dara amuti itte doomu aadama nag naka nga koy liggéeyloo te wax ko ni ko duñu warloonte loo xam ne moom laa lay jox nga di ko faje sa itte mu ne loolu man bokkuma boo loolu jàllee sëriñ bu Mbacké radiyallahu anhu ñëpp xam nañ ko moom sëriñ Touba dañuy wax ni benn bis dafa am jëmm ji ñëw ci këram di sàkku ñu ñëw ca këram moom jàngal ko ay kaamil wàcce kaamil mu wax jëwriñ ji pour bu bis sàngam jotee muy bis boobu mu sàkku nañu dem jàngal ko kaamil ba bis ba jotee mu am ñu yebal ñu dem jàngi kaamil ba dellusiwaat mu laaj leen ñaata kaamil ngeen jàng ñu wax ko ko mu ni leen lu mu leen tiraangaale lu mu leen tiraangaale ñu ni ko dara mu ni leen boo légee bu fi wootee bu leen dem boo légee bu fi wootee bu leen dem daat ni ndax lu toll ni téeréb suñu borom bii ku ci liggéeyloo nit te séentuwul ci yow añu fële danga koy añal fii lu toll ni téere suñu borom bii ku ci liggéeyloo nit te séentuwul ci yow añu fël di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan sunu borom boole ñu baal xam naa di yëkkati kàddu yu gàtt rek kàddu yoo xam ni kàddu cant la ak kàddu yu ngërëm ak kàddu yu ñaan waaye li fi matoon a wax lépp rek mbokk yi fi teew wax nañ ko muy ñi fi jiitu woon ci oustaz ndaw mi tàmbale woon ci suba ba ci oustaz Cheikh Fall mi daaneel léegi ak ñeneen ñi ci topp ñëpp rek kon mu mel ni ñun suñuy kàddu dañ koy jëmee ci ci sant ak gërëm rek cant bi ak gërëm gi rek ñu ngi koy doore ci sunu mbokki bopp yi muy sunu mbokki sëriñ daara yi ñi nga xam ne ci suba ba léegi ñëw nañ fi ñëw seeni donga taxawaay fi taxawaay bu rafet ba weeru koor wi tero ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di jàng ay kaamil ba lim biñ fi joxe toll na ci ñaar téeméeri kaamil yu tegal kon mu mel ni ñooñu kenn amul seenu fay ñaar téeméeri kaamil ak juróom-ñett jàng nañ ko fi limu xasida yi moom kenn xam nu mu toll kon mu mel ni loolu sedd na suñu xel lool. sedd na suñu xol ki ñu koy defal itam xolam sedd na ci ndax lu ñu ko mën a defal lu dul alxuraan rek gisul loola kon sëriñ daara yi ci ñoom lay tàmbalee sama cant di leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bu rëy bi at mu ne noonu lañ koy àndee ak ñun weeru koor bu teroo ba ni ñu waree rek ci njàng mi la ñuy nekk am na ci ñoo xam ni bët bu set daanan jàng juróomi kaamil am ci ñoo xam bët bu set benn kaamil am ci ñoo xam ne bët bu set ñaar noonu lañ koy jàppoo ba bañ waree bu ñu waree ñoom ñëpp ñu joxe seenub lim ñu boole koog li ñu am fii bu ñu boole lépp tey nag mu ngi toll ci ñett téeméer ak juróom-ñett kon loolu mu mel ni àdduna bi yëpp xaj nañ ci kon ñi ngi ñaan ci bark Sëriñ tubaa képp koo xam ni teew nga fi rek yitte joo fi indi woon yàlla na ko suñu borom saafara aajo ju fi waay indi woon yàlla na ko suñu borom saafara ci barke yàlla na ko suñu borom saafara ci barke alxuraan di sant bu baax itam suñu kilifa yi bopp yi muy sunu sëriñ yi ñu koy dale ci sëriñ Sidi Mbàkke mi fi jóge léegi di doomi sëriñ Murtala di suñu wërlëre di suñu xarit eh, mu mel ni daa aman yéene yendu sax waaye xam naa yitte yi xat-xat yi moo tax ba mu naajee ñëw di sant bu baax itam kilifa yi ci biir sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Mourou Mbacke moom sëriñ Afia moom itam at mu ne nii la koy àndeek ñun ba ko suñu waajur daan taxaw ba nëga ni nii la ko daan àndeek ñun di fàttali mbokk yi rek bis bi lii sababu ñu woote ko mu mel ni du ñun ñoo sos suñu bisu bopp bis bi mu mel ni suñ Mourou Fall mi ak ñeneen xam nañ lii sabab bi mooy sama waajur moom moo ko daan defal sëriñam bisub cant la ko tudde ginnaaw bi mu fi bàyyikoo nag sama sëriñ xamal ma ni jërul ngeen koy wutal bis boole leen ko bisub sëriñam bi mu daan def mu doon benn bis kon man wóote ma bis waaye man damaa sof lu bàyyi seex doon def loola mu mel ni loolu laa dundalaat waaye du man maa woote bis kon képp kuy ñëw ci bis bi nga xam ni bis boobee sama waajur daan def moom laa dundalaat waaye du man maa wut sama bisu bopp waaye mboolem ku fi teew rek maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant sëñ Moustapha Mbacke mi ci biir ak ay rakkam yi mu àndal sëriñ Sidi Mbacke ak sëriñ Cheikhouna Mbacke ak mboolem ki kilifa yi ci des lépp rek sëriñ Abibou Gaye Taskiru Saba ak euh, sëriñ Moudou Mokhtar Lo Abdou Sakir Ansaaru Diin moom itam ñëwoon na fi moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm waaye suñu mbokki jàngkati xasida yi xam naa buñ ci tuddee Baye Ousmane gay mi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp rek mu mel ni dana yóbbaale ñi ci des ñëpp mook suñu xaarim loo ak suñ mudu faal ak suñu alaaji lay ñoom ak mboolem jànkati xasida yi bàyyi mbay joob ak ñëpp rek mu mel ni buñ leen tuddee rek ñu yóbbaale ñi ci des kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom itam di leen gërëm waaye di sant bu baax itam njabootu Baye Cheikh gi nga xam ni maa ñoom ñoo bokk bis bi muy sama rakk yi muy góor ñi muy jigéen ñi ñoom ñëpp mu mel ni jàpp nañ ci bis bi kon bis bi mbooleem lu ngeen gis ñu def ko fi rek jàpp leen ni man defuma ci dara lépp mu mel ni mbokk yi ak sopp yi ak wëlëre yi ak xarit yi ñoo def lépp man amul dara loo xam ni def naa ko ci kon mu mel ni man mënuma leen a fay sëriñ Tuubaa mi amul fay yàlla leen fay waaye de sant bu baax itam sëriñ Basiiru la mi nga xam ni moo fi indi euh, télévision bu mag bii di waaru TV ànd ak caméra maanaam bii moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm suba ba léegi mi ngi fi mook Seydina Ousmane Sourang e, borom e, xel ko mate moom itam teew na fi ñu bokk rajo bu ñu yëngoo fële ca Mbàkke ci Bawol Média mook suñ maam Góor Diop ñoom ñu ngi leen di sant bu baax kon moom moo fi ñëw teewal fii waa rajo bi yëpp muy Seydina Ousmane Sourang waaye di sant baax itam Serigne Xaadim mais nga xam ni matériel bi ñuy waxee moom moo ñu ko andil ci suba ba léegi mu ne fi mu mel ni ak mbaaxam sax moo tax mu ne fi ba nëgën waaye waxtu wañ waxante war ak moom mu mel ni jot na bu yàgg ndax ginnaaw tàkkusaan lañ ko waxaan kon bu ko neexan mën naa dindi matériel am yóbbu ndax waxtu wan ko waxaan jot na bu yàgg waaye nag ak mbaaxam akub yaram akub taalubeem moo tax boobu léegi déggu leen ko mu soññee kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaana bu baax yal na ko yàlla fay yal na ko Sëriñ fay te matériel yi gën a yokk bu baax a baax kon mbooleem koo xam ne teew nga fi daal muy góor muy jigéen mag ak ndaw sant na ñëpp gërëm ñëpp di sant bu baax itam suñu dëkkandoo yi ndax mu mel ni dëkk ak ay donga dafa metti toujours rek donga yi ñu ngi tooñ ñu ngi taqal ñu ngi yàq waaye ñoom ñu muñ ko duñu ñëw duñu jàmbat du duñu wax dara kon ñoom itam ñu ngi leen di jéggul bu baax a baax te xam ne loolu xeli xale rek moo leen jàpp moo tax ñuy def yenn yi kon suñu dëkkandoo yëpp ñu ngi leen di baalu àq di leen jéggulu waaye di leen sant bu baax itam ci taxawaay bi di sant bu baax itam soxna yi nga xam ne ñoo nekkan ci waaj wi ci suba ba léegi di defal xéewal yi ñoom itam sant nañ leen bu baax gërëm leen macha allah tubaarkalla togg yi am na solo lool ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax itam sunu baay Sam Kane moom it suba jaar na fi ba barkeelu ak sëriñ moor Mbeng moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax mu mel ni ñoom ñaar moom bis bi seen bis la bis bi moom ñoom bokkuñu ko kenn kon lu ñu fi def rek defaluñ ko kenn seen bopp lañ ko defal muy sëriñ moor Mbeng ak sëriñ Sam Kan ndax ne ko Baye Sam waxe fii rek ba ko Baye Seex di door booba ñetti nit xawma ñeent ñoo fi daan nekk moom rek moo fi daan nekk di jàng kon mu mel ni ñoom bis bi ñoom seen bisa ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax itam suñu baay Mbay Jóob nga xam ne moom moo fi suñu waajur muy rakki baay Seex moom itam teew fi taxaw fi taxawaayu waajur moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko kon daal sant nañ ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp yàlla suñu borom faj aaju yëpp rek kon xam naa ñu jox kàddu gi Baye Mbaye Diop rek bu ko defee moom itam mu barkeelu ci donte ñaari bayit rek bu ko defee suñ xaadim tëj suñ bi ñaan ñu yeewi ko ba beneen yoon incha allah xam naa ñuy jégaluwaat tuuti rek ci kàddu gi ñu jëlaat ndax mu mel ni bi jëlee woon kàddu dañoo am tuuti lu ñu fàtte woon rek ci cant gi muy waa daayira Sëriñ Fàllu ñu bokk ak ñoom koñ bi muy daayira boo xam ni Baye Cheikh moo ko sosoon jiite woon ko doon ci taxaw taxawaay bu rafet ginnaaw bu mu fi jógee sëñ Babacar Sylla jiite ko ñëw na fi ci suba ñëw nañ fi léegi indi seenub siyaare ci njiitul siñ baabakat Sylla ak soxna Mbène Dieng ak soxna njaayaloo ak ñi àndal ak Serigne Sawru Niang kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaye di sant bu baax itam sama ñaari mbokk yi toog mooy Baye gay Ndiaye di suñu magum daara nga xam ne suñu xale ya Madiyana bii suñ daara yi fi nekk yaakaar naa ñi ko ci mag bariwul moom itam teew na ci jitaay bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak alxaaji mam seex Ndiaye moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak sëriñ Kosa njaay ak mboolem mbokki suñ daara yi ci des yëpp rek kon loolu rek lañu ñu fàtte woon ci cant gi mu mel ne bu ñu sañoon képp ku fi teew rek ñu jaar ci saw tur ak saw sant sant la gërëm la waaye nag mu mel ni loolu dana xaw a jafe lool kon daal ñi ngi sant mbooleem ku fi teew képp rek ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibi yi kenn ku ne ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la jox sa wàccuwaay bi yàlla ci yow ta borom bi subhaanahu wa taala jox la ko xanaa di yëkkati ay kàddu leeral ak i cant rek jëmale ko ci mbooloo mi fi teew ak sëñ Abdoulaye Diop mi ndax li tax mu mat a leeral mooy nit mënoo ne ci mbir te naan man maa ne ci mbir mii nii nii laa koy doxalee kaay leen jàppale ma ci naam sañ nga ne maa ngi ci waaye nag am na ci yooyu mënoo koo leeral muy lan mbirum daara daara dafa nekk loo xam ne nii dañ koo tumuranke lool ci jamono te daara di dara euh, boo xoolee ñi nga xam ne ni sax dañuy yor seen doom bëgg ko yóbbu ci école ba te seen xel neexut la def mooy lan jël ko yóbbu ci daara damaa bëgg a xel mi ubbeeku ma daal di ko yóbbu ci école jàpp ne ma ngay nax boppam fekk ba ma ngay nax suñ daara ba fekk naxul suñ daara ba boppam lay nax jàpp ne ma ngay nax euh, doom fekk naxul doom ja boppam lay nax sëñ Abdoulaat mii nag ñu gis ne waajuram muy sëriñ Seex yar na ko ci diine yar na ko ci lislaam teg na ko fa war a teg jàngal na ko yar na ko ba tey moo tax mu bëgg lu baax di ci dox di ci wax su fekkoon ne day doxee neneen wala muy waxee nen wala muy jëfee neneen yaakaar naa mbooloo mi kenn du fi teew su ma ko sañoon a wax dama naan mbooloo mi ñaar rek lañ ñu fi teew ñii dañ fee teew ngir jëmmi suñ seex ñii teew ngir jëmmi suñu laat ñii fi teew ngir jëmmi suñ seex démbal woon tey door a ñëw moo tax ñu topp ndax dégg ngeen léegi sëñ Abdoulaye ci biir waxam mu ne sofut euh, sosut dafa sof waaw sos mooy loo xam ne dara newu foon nga ñëw def fi dara sof mooy lu fi ne woon nga ñëw jokk ci mu wéy te boo la delloo ci xel mun na joom da gis ne boo jëloon bàyyi seex da gis ne day nekk maa yu muy ndox ngay jël abdoulahat moom itam benn lay doon mu nekk maa yu muy ndox waaye li ci gën a mooy ñoom ñaar da gis ni benn lañ ñoo bokk benn biddiw lépp kon nga gis ne nekkul ne loo xam ne ni abdoulahat dafa ñëw rek bëgg a baax baax waaye dafa nekk tànneef ci biir tànneef nit mën naa bëgg a baax te du baax nit mën naa bëgg bon te du bon ndax dañuy wax ne baax moo gën a yomb bon baax tey boo bëggoon a julli soo jàppee fii léegi mën nga fee kabba julli fi soo bëggee def lu baax mën ngaa yëkkati adde yi joxe sëñ Abdoulaye mi nga xam ne nii moo doon jëmmal bis bi wala jànkat yi fi teewoon waaye lu bon tey boo ko bëggoon def sañu toog fii di ko def kon lu bon ka koy def day làq door ko def léegi kon lan moo tax lu baax gën a yomb lu bon ba pare ñu bëgg taxaw di sàgganee ba lu baax néew doole ci kaw lu bon borom bi subhaanahu wa taala lan la wax ku ma defal benn bu baax ma fayal ko fukk ku ma defal benn bu baax ma fayal ko fukk mu ne sëñ Abdoulaye Diop mii daara ji nga yor di jàngale xale ba nga xam ne nii baayam jël na ko indi ci daara ji ngir bëgg lu baax xale boobu bu ne baax ñu commencé koo jéggal ay waajuram xanaa yërmande ak mbaax foofu la fekk baax. suñ borom subhaanahu wa taala bu ne Seydina Ousmane mii bu defee benn bu bon ma wax ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko seq na xaar a biir su tuubee ma jégal ko su tuubu na ngeen bindal ko benn booba waaye bu defee benn bu baax nañ ko daal di ful suñ borom lan moo tax muy wax loolu lan la daa amul lu bon amu ko ñaay def lu bon ñoo am lu bon waaye suñ borom lu baax la am moo tax ku def lu baax mu fulaloo ku amul lu bon nag muntu fay muntu fay lu bon génn kilifa dafa waxoon ne bu ñu di sàggan ba suñ fukk fukk di suñu benn benn di ëpp suñu fukk fukk muy suñ benn benn yu bon yooyu fuñ toogee di jëw fuñ toogee di jaxas dangay ngay xool bu njëkk lu baax def ko yomb na waaye fésal ko lu jafeloon soo toogee fii léegi benn mbokk nekk bitim réew lu mu la yóbbante ci xaalis lu mu bari bëri booy génn fii di ci jot waxuma la xaalis bu njëkk waaye nit rek danga koy soxla téléphone da koy woo une semaine da nga am door ko jot lan moo tax ñu taxaw ne jamono daa yàqu te jamono gën a jag tey jamono ji jag mënuñoo fexe ba ànd ak moom di jag di dem ba laa xel suñu lépp jag waaye bu ñu waxee ñu ne jamono léegi daa yàqu jamono yàquwut de lenn si jikko yi ñoo yàqu li fi ak jant ngi xëy di fenkee fa daa fenkee di sooyee fa mu daa sooyee ñu baax ñu taxaw temm ci defar lu baax wallahi jamono de gën a jag rek nit ki boo nekkee bitim réew som buñ la yónni lu mu bari bëri léegi nga jot te bu njëkk mënoo ko léegi lan moo tax nga ñu bëgg taxaw ne jamono daa yàqu soo duggoon ci internet bi ñay wax lu bon ñu koy fisal ñoom lañ di gën di siifur léegi boo duggoon liñ fi mujj publier ak ka nga xam ne nii turu siiw la yor di wax wax ju bon ñu koy siifur donte tey suba la dugal boo xoolee mu ëpp ay wii fuuf te du ci am yàlla du ci am yaali xanaa kon ñun ñooy dooleel ñooñu te tey bu fekkoon ni euh, lu mel ni Instagram la am koy wax lu bon sëñ Abdoulaye Diouf bi siifuru ngir bëgg caa xamee la may wax bu ëllëgee muy yeeta ca danga gis koo xam ne nii su gisee numéro sëñ Abdoulaye Diouf lan lay wax moom de ma ngi si ñu bon ñu fekk ne ma ngay jàngat ndax genn kilifa dafa wax ne kuy gëstu kat doo bañ ku la tuumaal ku kuy gëstu doo bañ ku tuumaal ñu ne ko ndax lan mu ne dem na ba ci baar yi sax da a dugg ngir xam la fa ne soo liggéey sooy wax xam la fan xam la nga xam ne nii moom nga fay wax mu ne muy wax sax bay joxe benn misaal mu ne dafa am ci koo xam ne nii da doon gëstu dugg ci benn baar wala mu ne boo doon gëstu tey dugg ci benn baar bay génn nga dajeek benn waaye boo xam ne nii xam na la xàmme la nga fakkastalu daanu lan lay wax barke Sëriñ tubaa maa ko gis daa naan ba màndi ci baar ba la génnee tërëf daanu allahu akbar lam foog amut waaye lam gis loo am la mbokk yi xool leen ñaari sew sew yooyu ki génne ci baar ba di gëstu génn tërëf daaru Seydina Ousmane Gaye mii gis ko man mii ma gis ko taxaw waat ci sëñ Touba ne dafa daan ba man bi fan laa ko teg damaa njortu la ma gis loo am la muy tërëf daanu waaye nag la ma njort amut muy génn ci baar ba kon nañ leen bàyyi ñaaw njort wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu وليكن إذن ودابا يا سمت تولني ولا تكلني لآت ورعم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليا حسن الختان عندك والتصف صلاة للصحابة أنا لي وللإجابة kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon léegi ci bàyyi ko fi sëriñ Sidi Mbacke ak rakkam yi nga xam ne moom la àndal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëñ Abdou Lahad Diop mii nga xam ne moo uh, moo wàcce bis bi te jubluwutu dara lu may ñaanal ay waay juróom ndax mbégte nit ki yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na ku faatu ku ne sa jëf day dagg ba mu des ñett des ñett. ba mu des ñett. benn bi. benn bi. mooy mu bàyyi doom ju baax ju koy ñaanal. mooy mu bàyyi doom ju baax ju koy ñaanal. wala sarax boo xam ne da koy sarxe. wala sarax boo xam ne da koy sarxe. wala garab jëmbat wala wala lu mu liggéey loo xam ne ni ni mu bàyyi ginnaaw ni ñu koy jëriñoo. wala caxat gu mu jëmbat wala loo xam ne seen da ko bàyyi ginnaaw luñ mën a jëriñoo. waaw loolu lépp nag. loolu lépp nag. su ko defee ñett yooyu mu bàyyi. su ko defee ñett yooyu mu bàyyi. kenn ki nag benn bi. benn bi mooy Sëñ Abdou Lahad mii mi ngi taxawu waajuram di ko ñaanal ginnaawam kon mën nañoo rafet njort moom ndax ni doom war a mel mu war faa taxaw ci ginnaaw waajuram taxaw na ko ba mu mat sëkk nan ñaan yàlla suñ Abdul Ahad mii mu yàgg fi lool ci yàgg koo def yàgg ko ànd a ñun ñii ñi nga xam ne ñooy dëkk ci bis bi di ko ci jàppale ah, ñëpp ñoo xam ne am nañ yéene ñëw. ak ñëpp ñoo xam ne am nañ ay yéene ñëw. ak ñi ak ñi fi amutoon. ak képp ku fi teew daal. ak képp ku fi teew. ñu ñaan sunu borom. ñu ñaan si yàlla sunu borom. lépp luñ fi jàng. ci alxuraan ak xasida. yàlla na ko suñu borom boole ko ay tiyaaba. fuloon ñu ko làqal ñu ko fi yàq yëgul sotti ko ci sunu boy boobee. liñ ci war a wax yëpp daal. liñ ci war a wax lépp. wax nañ ko. mbot mbokk yi jiitu wax nañ ko. daanaka sant dañuy def rek. dañuy sant rek. di soññee. di soññee. di gën a góorgóorlu. di gën a góorgóorlu. di gën a sax ci jaamu yàlla. di gën a farlu ci jaamu yàlla. ak liggéey. ndax ñaar yooyu. mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ ëllëg kon yàlla nañ ci yàlla dimbali ba loolu lépp ñu man ko ci barke Serigne Touba xanaa wax ji du gudd lañ lañ fa waroon wax lépp mbokk yi jiitu wax nañ ko kon dañuy ñaan rek ba déwén ak jàmm incha kon nañ ñëpp tàllal sëñ bi ñaan waaw xam naa mbokk yi ma jégul tuuti rek eh, mu mel ni sëriñ bi sax bu yëkkatee kàddu ba noppi kenn waru ci woon a tegaat geneen kàddu lu dul ñaan waaye mu mel ni bi sëriñ bi di yëkkati kàddu daa am suñuy kilifa yu dugg si ñuy suñuy mbokki bopp ñenn ñi di suñuy nijaay ñi ci des di suñuy bàjjan euh, féete ci suñu wetu kërum ndey ndax olof day wax ni ku am kër baay am nga kër ndey ñoom nag ñu féete ci wetu suñu kër ndey ñu woon ci bis bi nag doon feeñal seen yéene kon ñoom itam teew nañ fi muy njabootug waa kër Mame Sylla Mané ci njiitul Serigne Modou Khady Fall suñu nijaay ak Serigne Modou Ami Diané ak soxna ñu àndal soxna Xadi Xumma ak soxna Ndang Ndonga ak soxna Jobbe Silla xam naa kon dañ leen di jox kàddu gi rek kàddu yu gàtt rek ñu yëkkati ko ci te sëriñ bi ñaan incha allah bisimilah sëñ Moodu. ñun nag wàcc la dara maan la ne ci dëkk bi di sëti sëriñ Masila Maane Abdoulaye joom mi ne yàlla dafa dogal nu bokk liggéey boobu liggéey boobu nga xam ñu ngi koy di ci kër sëriñ Masila Maane noo ko bokk ah, fu ñu koy dajee mu dafa ñëw ñu amoon nag euh, benn délégation bu ndaw mooy nu ñuy ànd. noonu la waa waa waa sëti Massilimaane yebal ñu teewal ko fi ah, dikk fekk si bis bi amoon nañ yéene sax maanaam ah, mu gën eh, a teel ñëw waaye xat-xati jamono rek moo tax ñuy door daje waaw ñu ngi sant bu baax di di rafetlu taxawaay bi eh, di ñaan yàlla mu yàgg koo def te yàgg koo ànd ci barkeb Sëñ Tuubaa kon daanaka loolu moo doon kàddu yi rek xam naa eh, ñoo ngi ñaan daal yàlla dimbali ba. ànd bi yàgg ndax rafet na loolu wax dëgg yàlla waaw ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ci njiitu sëñ Mourou Khady Fall mi ci laay moo moo mooy suñu kilifa fii ci jataay bi ànd ak soxna Khady Khoumame ak soxna Ndang Donga ak soxna Jobe Silla ak ñi ci des am yi kon ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm wax na jërë ngeen jëf ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ di sëñ fekk booba sëriñ bi nga xam ni moo moo kilifa jotaay bi wax na sëñ kii sëñ Muxtaar Mbàkke mii sëñ sëñ Moustapha Mbàkke mii fekk na sëriñ kii bu amee sëñ Murtala moo fi jëkk a ñëw moom itam ak yéenam ji rafet ak waxtaan waxam yoo xam ji rafet kon wax yooyu bu jiitoo rek daanaka kenn doy na yoonu murit moom dañoo dañoo day yoonu kilifa buñ see wax rek kon daanaka rek day doy na sëkk xanaa sant rek ak ñaanal mboolem daal ñëpp rek képp ku fi teew daal ñoo ngi ñaan yàlla yàlla fa ca yaajo ku fi teew ren yàlla nangu fi teew déwén yàlla bu la dara dog àddina ak alaxira noo ngi ñaan lépp ni fi ñaan lu ñu fi jàng mu toll ci ñaari kaamil ñaari téeméeri kaamil ak juróom-ñett jàng nañ ko fi ñaari téeméer yooyu kaamil ak juróom jàng nañ ko fi ci diggante daara alxuraan yi ak ñi jàng ci seeni kër ak biir daara ji sëñ ji daara yi boppam ji ñoo ko ànd jàng ko ak wëllëre yeeg jegeñaale ñëpp ñoo jàng lim boobu lépp waaw kon nag yàlla na ko yàlla nangu li mu xasaay moom xamuñu nu mu toll moom ndax moo tax ma leen daanaka di ko bind nañ wax bu ñu waxee alxuraan yóbbaale na lépp kon daal di ñaanal suñu kilifa yi yëpp yi nga xam ñoo fi jot noo ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax rawatina sëñ sëñ sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ bi fi jëkk a ñëw sëñ doomi sëñ Mourtala ji sëñ Sidi Mbacke moom it noo ngi leen ko ni ñaanal bu baax a baax yàlla na leen yàlla yokk saa yi rek baat yi guddal seen fan wéral leen waaye di ñaanal bu baax a baax itam euh, mboolem ci ñi nga xam ne xëy nañ fi daayira yi alxuraan yi nga xam ne dañoo xëy ñoom ñëpp àndandoo ñëw fii ànd ak sëñ sëñ Abdoulaye Diop jataay bi ñi di fi jàng alxuraan xëy nekk ci ba bëccëg bokk na ci li tax ñi am am lim boobu loolu bokk na ci yokk na yokk na ko bokk waaye di ñaanal itam jàng xasay yi jàng jàngkati xasay yi Euh, ak yi dëkk yi ko wër ñoo ngi ñaan ñoom itam yàlla guddal seen fan wéral leen ndax taxawaañ bi taxaw rafet na lool ci suba ba léegi ñi ngi yëkkati xasaayit waaw te yëkkati xasaayit dafa am solo lool ci ci jataayu murit te ci suba ba léegi jàngkat yu mag yi ñëpp ñu fi rek ñëw ni fi ba jàng fi ku ci ne dañ koy def limite ku ne sax ñi may la tuuti ndax ñëpp ñëpp ñi yéenoon ñëpp du ci xaj waaye di ñaanal itam Ah, lu demee ni que rajo yi yenn yi nga xam ni ñoom itam dañuy ñu jàppale ci bis yenn def yeme nii ñoom itam ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom yokk leen ah, ak seen njiit yi ñu bokkal liggéey bi di ñaanal bu baax a baax mboolem te ñi nekk yendu fii di jàppale sëñ Abdou Lahad Jóob bi ñoom itam ñoo ngi leen di bu baax baax a di ñaanal itam suñu dayre bi nga xam ne mooy dayre sëriñ Masila Maane ñoo leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom leen guddal seen fan ndax dañoo àndandoo ñëw ñoom ñëpp ñëw teewal mel ni sëñ Missirah Mané sëti Missirah sëñ Missirah Mané yëpp def dara soo ànd ñu ñëw euh, ci diggante sëriñ Modemi Diané ak man mii ak euh, sëriñ Fallou Xuma ak Serigne si la ñëw di ànd ak soxna yi ci njiital soxna Xadi Xuma ak soxna si la ak soxna Ndang Ndonga ak soxna Mbenn Fall ak soxna Fama Sylla ah, ak soxna Ndeela Sylla ñooñu ñëpp ay jëwriñ ci ci liggéey bi yoo xam ne ñu ci ràññiku lañ ñi nga xam ni daal ñoo ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla guddal seen fan wéral leen bi ñuy tëjee suñu kàddu nag mooy ñaanal suñu jarbaat bii bu baax a baax a baax muy sëñ Abdou Lahad mii yàlla na yàlla guddal fanam lafal ko cat yéene ji waajuram yi aman ci moom yépp yàlla na ko yàlla àggale sëñ Abdou Lahad yàlla bu la dara dogal doog àdduna ak àllaaxira yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na nga àgg niw yoon ak képp koo xam ne teew nga fi rek ak ak mbaa nga yéemoon rek yàlla na yàlla faj sa aajo kër gi daal képp koo xam ni sa aajo nar ta faju yàlla boo fi mën a dugg waaye boo fi duggee rek yàlla na sa aajo faju soo soo soo yéene woon rek te xam ni yàlla dogal dogal gàllantoon ba mën laa ñëwit rek kon yàlla mi yor lépp moom lépp yàlla na faj sa aajo saahiran wa baatinan di sant bu baax a baax suñu xarit di sëñ Modou Fall moom itam di ko ñaanal bu baax a baax a baax sëñ Modou faal jànkat ak suñu jarbaar yi toog di ko dale ci Serigne Ndiaye Diop ak kon nag mel na ni yàlla jàpp ne na ko ci waaw lool nag naka njëkk man dama ko wax ja day lii bu yàlla day dox ndax sëñ Abdoulaye Diop di sëñ Abdoulaye taxawaay bi mu taxaw day mel ni daal fàggu teefu sëñ bi ndax boo ko tee sëñ Cheikh Diop moom tey day ko ku kéemaane ndax way juróom euh, sëñ Cheikh Diop ci moom dafa ànd ak sëñ Touba Ndiaye ak sëñ Elsa Ndiaye ñi nga xam ne mooy seen way jur dafa doxoon ñeenti doomam sëñ tuubaa ñeenti doomam benn yoon rek defe naa juróom la sax kenn ko daa du ko kii waaye juróomi ni la waaye ñeent ñi moom bokk nañu nekk ci daara ji lu yàgg mu jox leen sëñ Tuubaa loxo boppam ñoom ñeent la ba bokk woole wom womat lañ wax ci niñ ma ko waxee jox leen sëñ tubaa xam nga loolu nag loolu mandarga bu ma rëy la kon ku ñëw ba bu fekk fekkee lii kon da nga xam ne lii kon lii fu mën naa àgg fu ne te it fu ñu àgg tey ba ñu ko yëm rek bu déwénee dina ko weesu noo ñaan nag képp ku ku fi ñëw daal ku fi ñëw yàlla na la yàlla yokk aajo joo am boo xam wax nga ko wala ci sa xol la wala ci yéen di yéene wala loo bëgg muy ci lislaam muy ci bokk gi muy ci ci njaboot gi yàlla na ko yàlla àggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sant bu baax itam suñu mbokk yi nga xam ne agsi nañ fi léegi eh, nga xam ne maam ñoom ñoo bokk fu ñuy yëngutoo ci rajo Baol Média muy Serigne Moustapha Thiam ak Serigne Ibrahima Khalil Diop ak Sina Ousmane Sourang mu mel ni directeur Serigne Mouhamadou Diop Thiat moo leen yebal ñu ñëw teewal ko fi kon ñoom itam ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen jot li sunub cant ak sunub siyaar ci kilifa gi leen yónni Serigne Mouhamadou Diop caat kon Serigne Moustapha Thiam directeur rajo bi ak Serigne Ibrahima Khalil Sina Ousmane Sourang ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seenub teewaay mel na ni waa rajo ba yépp teew na sant bu baax xam naa kon mu mel ni jitaay baa ngi bëgg a yàgg ñu jox sëñ bi mu ñaan rek bu ko defee incha allah ñu yeewi ku ba déwén kon mbooleem koo xam ni indi woon nga fi aajo mbaa ak wéradi na nga ko na ko fas sëriñ bi ñaan képp ku am soxla daal walla aajo wala ak wéradi ak lu mu mën a doon fas ko ci incha allahu rabbi suñu borom mën na koo faj ci bark alxuraan ci barke sëriñ tubaa kon bisimilah nañ maasa tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan. yaa rabbana salli wa sallim sarmadak ala alladi sammaytahu muhammadak yaa rabbana salli wa sallim sarmadak ala alladi sammaytahu muhammadak وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وأبله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب